sous ton de ici quoi. Ah d'accord. C'est pas cette bonne côté là Une de 16 ans, une de 16. Une de 16 ans Ouais, une de 16. waaw d'accord. Inch'Allah. Les allah je te laisse informer qui, Ouais, waaw vous savez bu informe les les les Euh, les journalistes. Moi, je me charge de de du perdu. bon comme d'habitude. bon comme yow yaa ko donne yow yaa doon leen parce que là man bu que comme demee ni ni ni ni ni ni ni là je suis pas hein. ouais je suis pas en mesure de de kii nii comme yow ñu ni yaa qui suivre ak ñoom. ok yow kii leen ko de faire ben affiche peut-être le plus vite possible man su ma ko jotee ma envoyé ko samay contact quoi. voilà voilà. ok dégg nga ñu ah ñëw. d'accord d'accord ok d'accord. mu ngi waaw d'accord. ok inchallah. ok kon je te laisse informer Guy ah. d'accord d'accord. waaw mais il faut que ma am les détails heure bi ak yooyu. 16h on avait dit 16h. 16h d'accord. ok 16h ok d'accord inchallah. c'est bon d'accord. merci. bis compter. lii booy loo ciy compter. compter ah. deux non booy lii doo ko mën a compter. doo ko compter non mot na lu ma ciy compter. waaw. ay mu lijjanti woon nga trois yooyu la nga waxoon wala trois lijjanti woon. fan laay lijjantee trois. <laughs> léegi xoolal. waaw ba xam. passeport passeport baa kii soo ma ko mënee dimbaleel. kii kan imprévu la sama mooy doon gérer sama doom yi. léegi man sama bosa ngi nii parce que mi mais bii pareil quoi. dugal ñaar yi. sa bos ak sa bos. waaw boo boo mënee dimbali rek coow li ah. muy sept cinq cent. man du problème mu xaalis bi de. Mhm. mais dama bëgg au moins comme yow da nga maa ak sa jabar ji expliqué. Mhm. loolu tax ma bëgg xam nga rek la loolu quoi. ma kii waaye la. ah baax la. xoolal dafa gis xam li may moo tax xam nga bu doon euh, kër gi day voyage ñu mën ko dugal ut ko utal ko. lay. booy gérer ma lii mën nga gérer lu na ay tontu. am na xam nga am na bu bees la. bu bees la musul musul voyager. musul mais kii la étudiante la. Ah, kii am euh, ISM. ñaar yi daal. Mhm.

daa ma jaay la bii sama boy yi 22 la ñu wax mais dañuy wàcc. ban 22. ci ban année la la de 2017. c'est trop. 60 000 kilomètres. waaw yaa ko moom ngay. non moom moo ko je t'assure. barke yàlla non non moom moo boy may job mais dañ job nag. dañ job. xam nga man boobu fu man jaay bi gën a gaaw mooy ma koy dawal. ok gars yi gis ko xam nga baax de ci. léegi yow kañ kañ kañ wala kañ nga xalaat wala. Hmm, léegi bàyyi ma déjà ma ma ma parce que lii dama il faut ma toog ak la consul direct. Hmm. waaw moom laay toog ak direct quoi. mais état comme ay artistes lañu ko la ñu. waaw dama leen di dama koy wax ni ko yow suñu suñu manager nga.

non dama koy sànni ne bu pare sànni ko. non damay sànni saxaar bi du dugg. waaw ayca. xam rek oto booy jaay doo ko doo ko mën a doo ko mën a. gars yi may laa doon jënd dama yónni. ñooñu lay xaar dama jox. gaale taw booy taw bu ñëwee dama changé cuisinière. dama foogoon ay garde corps la. déedéet garde corps fan. man dama mos a gis garde ma ànd ak nii. bi nga ma xamee ak léegi. billaay wal kitaab aw ma xarit man aw xarit. yow yow man daal ñun laa la xamee. xamee xamee waatu ma man aw ma xarit man kenn du ma gis ne ma ànd nga ak. déggoo ma ne ñun laa la xamee xamee waatuma ma la ah, kenn ci àdduna. parce que mës nga ma dégg fen man ñu ne ceer nii wala ceer ne la. du ma dégg sax ku la xam. <laughs> mës naa benn gel muy enquête ci woon. mu ngi mu ci gu mu dem ci nga xam ne moo dàq taxawal Sénégal mu ne ko ceer mu ne mais man li ma jaaxal waa ji këram.

parce que xamal luñ la xamal. benn booy booy ku ñëw ci ma xamal lan laa koy wax ku rafet xol la ku yëg doomu aadama la ku bëgg nit la alalam ju ko boole kenn mën na ko joxe toog. Mhm. li laa lay wax ni loolu laa xam ci moom day julli jullit la day julli. Mhm. dafa bëgg jaamu yàlla. bu weesoo loolu mënu mënu ma leen ci yow. te boo te bon te loolu la tamit parce que am na loo xamante ni liñ naan. lu dul dëgg du yàgg macha allah wax nañ wax ci lii. lu dul dëgg du yàgg. nañ wax ci lii tey boo nekkoon ci leneen. heure bi waxatuñu ko. nañ nekk nañ wax ci lii lii bëgg naa ko pour sama jamono. barki Serigne Touba Mbacke yaa ko fi bàyyi. 15. 15. yow lii xam nga 2015 bi booy gaa yaa ngi ko teg fee 2015 mais sama nit nga. gaa yaa teg fee di ko jaay lan di ko di wax ay 18 waa ji fa la taxaw. bii 2000 lan la la nga ne. 2017 60 000 kilomètres. ok. am. Euh, curseur yow sama boy boy Alpha xamoon nga sama frère xam naa Alpha Alpha Mara. waaw mu ngi fi anam. mu ngi fi mais doom doomu dimbali mu tukki. Alpha. bàyyi ma njëriñ. mën naa bàyyi ndey kii saxal ndaw si moom mu dem xam naa moom ngay gën a wóolu. Hmm? xam naa moom ngay gën a wóolu. mais Alpha dafa sob de xam nga Alpha sëriñ la est-ce que jéemu jël euh, passe boobu am joxe ko fenn ba mu ba mu takk. non non non non takk pour lan. maanaam dugal ko parce que Alpha Alpha dafa sopp